asalaamaaleykum wa rahmatullah Lu Xew TV maa ngi lay bu baax a baax a baax a baax ak képp koo xamante ni rek ànd ak mu ci site bi ngay nuyu di la di la siyaara si koor gi di la balu xàq di leen baxal xàq di balu xàq waa Sénégal yëpp ak bépp jullit boo xamante ni yaa ngi ci àddina bi rek ñu lay balu xàq di lu kàddu yi nga xamante ni moom nga jotal ci site bi nii ak yi nga xam xamante ni mooy teew ci biir réew mi ñu nekk loo xamante ni ah dañuy wax axiru samaan dañoo toll ci jamono axiru samaan boo xamante ni nit ñi dafay mel ni ñoo xamante ni xamatuñ gis-gis ay war ne na bàyyi xel bu baax a baax a baax kuy bàyyi xel tey ñaan yàlla mucc yàlla mën na lay dimbale ba nga xamante ni yu bari da ci mën a mucc waaye nag képp koo xamante ni dooy bàyyi xel lu ñëwagut ndax àdduna fi ne àdduna mooy nit ñi doomu aadama bi fi mu juddoo ba fi muy génnee àddina léppam àdduna la su génnee àdduna nag àddunaam tukki na ña nga xamante ni ñoom méngoo bis yaag waxtu yaag saaya ñoo fa des eh, su boobaa woyam daf fay des nag waaye wax ja nga xamante ni mooy des ca gannaawam mooy li ci ëpp sola mag ñu baax ñi soo gisee tey tey kun ci tudd rek saa saal ñu njaboot mën a siggi jëf ji nga xamante ni moom lañ doon def dañ ci doon xool bis bi nga xamante ni moom lañ di sa tey xool bis bi ngay bi bi ngay dese tey moo ëpp solo fuuf nga xool bis bi nga xamante ni moom nga jàkkarloog gis nga li nga jàkkarloog lu dee la ba pare li dee nag nettali ba moo gën a xam solo fuuf su baaxee lépp lu bokk ci yow rek da ngay gis ne dana man de siggi te doomu aadama li ëpp solo ci moom mooy kim bàyyi ginnaaw mu sédd ko cër doomu aadama bul xool sa bopp rek xam na loo xamante yaa ko moomal sa bopp waaye am na loo xamante da nga ko bokk ak umma bi yëpp am ki nga eh, diine su su lu rafet xewee ci diina ji dangay ngay gis ne moom dana siggi dana kontaan ci loolu waaye ki nga bokk ak tariqa naka noonu ki nga bokk ak benn papa naka noonu ki nga bokk ak benn ween bu ngeen nampee naka noonu kon doom aadama dafa am lu bokk ak nit ñi am loo xamante ni moo ko moomal boppam waaye lim moomal boppam lu tuuti la sax doomu aadama lim moomal boppam lu tuuti la te su demee ba jigee koo fi sax lan loola lim moomal boppam ci lay gën a feeñ waaye fekk ngir dund rek moomal boppam dara léppam dañ koo moom kon il faut ñu xam kilifa kilifa daal mooy li nga xamante ni mooy première cause bi kër yi euh, waaye jur yi nekk ci kër yi nañ xam ne ñooy war a xilif njaboot gi waaye bi waaye jur yooyu xam neen beneen kilifa goo xamante ni mooy jiite nation bi yëpp muy njiitam réew bi ak gouvernement beeg ak ñi nga xamante ñooy dox ci wàllu yoon yëpp ñooy ñëpp ay kilifa leen kenn ku si nekk nag taxawaay bi nga xamante ni moom nga war a taxawee soo ko taxawee rek lépp dana jaar ci yoon ku nangu xut ñu xilif la doo mën a xilif kenn waaw te jamono boobu nag dafa mel ni dañ caa toll fu mu toll nii da ngay dem ci kër kenn du ñemee xilif kenn bàyyi su fekkee ne dem na ba nga xamante ni ñemee tuta xilif doomam ndax xam na loo xamante ni su ko defee doomam ñu ne yoon dal kawam kon su boobaa da ngay gis ne xilif kilifteef dafay jeex te waxtu wu mu jeexee ci kër gi nag dafay jeex ci mbedd mi waaye dafay jeex ci euh, euh, nation bi nga xamante ni. ki nga xamante ni moo waroon a xirif ñëpp su boobaa daanaka baatam nit ñi dootuñ ko déglu dootuñ ko considéré comme ni nga xamante ni noonu lañ ko waroon a considéré may dellu da wax ne ñun dee dañoo dugg ci loo xamante ni dañoo yaakaaroon ne noonu la fekk du noonu muy démocratie démocratie day su fekkee ne nii la kon démocratie baaxut waaw su fekkee ne niñ ko dundee niñ koy dundee nii la fu ne nii kon démocratie baaxut démocratie man ci li ma jàppoon dama jàpp ne kenn ku si nekk xam nga gore nga ci sa bopp ndax lislaam moo njëkk a goreel doomu adama diine moo njëkk a goreel doomu adama gore ci sa bopp nag mooy mooy démocratie soo gore ci sa bopp nga yar sa bopp xànd ak yar bi nga xamante ni moom la kilifa gi def ci yow ah mbedd mi def ko ci yow su boobaa rek foo dem da ko mën a nekk ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di gërëm ki nga xamante ni moo créé site bi ak foo mën a nekk rek na ngay wax amin nga xam ne eh, ñi nga xamante ni seen baat jotixut can waxukaay yu ci ñu ngi jàllale foofu seen xalaat ci réew mi ñu ñaan yàlla rek yàlla def fi jàmm Euh, musiba yi nga xamante ni moo fee xam ci jamono bu ne ñaan rek moo ñu ci mën a génne yàlla nañu si yàlla génne ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ xar ci jëmmi yàlla ji ta xam ne dara mantu manu ñëy man manu ñëy def lenn lu xuuteeg jëmmi yàlla ji waxtu wuñ xuuteeg jëmmi yàlla ji rek da ngay gis ne dineen tarxiis te yàlla nañu yàlla musal ci tarxiis yàlla na yàlla musal ci ndaw yal na yàlla musal ci mag ndax képp kuy dund dara wéet la waaw ku dem ba jógee koo fi nag te lépp dem na rek waaye fekk yaa ngi dund rek dara paasagul la te rek ñuy déglu euh, si rajo bi ñuy wax ci affaire yu jéggalante te jamono bu ne ñu ngi dëkk di jéggulaante te jéggulaante bi dafa mel ni yeggut ci suñuy suñuy kër yeggut ci suñuy xol kon li ñuy jéggalu xante bu ñu xam ci làmmiñ bi rek waaye bu ñu xam ci loxo yi rek loxo yi ñuy joxante rek déedéet nañ yéene wante jàmm ñu yéene wante lu baax kenn ku ci nekk <clears throat> lan la yàlla séddee nga xam ne lii la ma yàlla séddee nga xam ca ñu ne gërëm ñëpp di nuyu waa yëpp di ko dagg ci njiitam réew mi président ak membre gouvernement bi yëpp ak ñu nekk ñu fi nekkal yoon yëpp nay di leen siyaara di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal ñu jàmm xewal suturaal ñu làq ñu fa yàq yeggut ku ñu xéene xiw yàlla nañ ko bokk ku ñu xéene sofaan ba yàlla nañu ci yàlla musal ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum